xibaar yi mbuur lañ koy tàmbalee ak lu toll ci ñaar fukk ci ay ndaw yu nekk ca quartier Tefes ñoom nag seen i mbokk amuñu ci ñoom benn xibaar ay fan a ngi nii mot na ñetti semaine daanaka. léegi tey mu mat sax ñaar fukki fan soxna naata buñ sukkandikoo ci APS bi jox xibaar bi am na nag soxna soo xamante ni seq na waxtaan ak euh, agence boobu ci moom daal nee na sax moom ay doomam sëtam ña nga ca ak gone yoo xam daal lim ba takk na lool yëguñu woon nag ba ñuy dem wan ban daal lan woo seen i wajur ña nga ne dem nan booba léegi nag amatul benn xibaar ba tax na ñu bëggoon sañoon kilifa yi daal di leen di wàllu ci lu ni mel den ci ñëwaat euh, topp boobee xibaar ñuy wax ca assemblée nationale démb député yi ci ñu ëpp ci ñoom juróom-ñett fukk ak ñett daal di nañ di rejeté projet de loi bi jëmoon ci daal di fiy jëlee ñaari kuréel yi di conseil économique social environnemental ak au conseil des collectivités territoriales di juróom-ñett fukk ñoom ña nekkoon ca yeewi askan waa ak seen ay alliés ñoom euh, danoo bëggoon daal di fii euh, jëlee ñaari institution yooyu ci jamono ji sax Abdou Mbow mi jiite groupe parlementaire benn bokk yaakaar nee na dana xëy toogaanu président assemblée nationale déposé fa motion de censure ngir daaneel gouvernement bi Ousmane Sonko jiite ndax jàpp na ni moom Sonko wegu leen lam waroon mooy teew fa def si déclaration de politique général ministre bi ñu dénk wàllu justice mi nga xamante ni moo nekkoon ca assemblée ba doon fa teewal gouvernement bi xam loi organique jëm ci modifier règlement intérieur boo assemblée nationale nee te mbiram ONAS am na enquête bu ci ubbi ngir daal di koy lu ndax coow li baroon na trop Macky Sall moom Eh, nee na daal benn bokk yaakaar eh, doy na eh, ba na sax yéene bi mooy ñu xoolaat neneen ak beneen taxawaay démb moom mi fi nekkoon njiitu réew bu Sénégal am na bataaxal bu mu bind daal di koy jagleel ay naataangoom yi mu bokkoon ak boobee coalition bi nga xamante ni kon fukki atak ñaar mi ngi ci réew mi nee na li ñu fi def ci wàllu taxawaay ci politique musul am ak ànd ba gërëm na ci sax koo xamante ni kon mooy Moustapha Niass mi ci àndoon ci boobe lettre et puis ñu wax it ci chambre de commerce bu Ndakaaru moom da lu ëpp fukki at a ngi nii gaa yaa ngi dem ak dikk ci wàllu yoon ngir rek euh, la fa amoon ci ay élection ñu daal di koy annulé euh, lool nag euh, ministre bi nu dénk wàllu koom-koom réew mi bi nu pataaxal démb daal di ne na respecté décision bi justice daal di jël muy première instance appel ba ca cour suprême jox nañ dëgg kon ki nga xamante ne moo doon biran biram yayaawan moom it di administrateur social la bokkoon ci ñoon xëccoo boobee chambre de commerce bu Dakar doonoon ko topp as wax tamit ci football rek ak équipe nationale bu Sénégal bi waajal seen match ak Burkina Faso jëm ci éliminatoire Coupe d'Afrique 2025 ca Maroc euh, lu toll ci fukki gaynde ak ñaar démb teew nañ ca stade annexe bu Ablaye Wade doon fa tàggatu ñoom Sadio Mané nekk ay naatangoom ña ci des ñu ngi leen di xaar ñu daal di rejoindre lii di groupe bi naata allah dinañ yaatal xibaar yi euh, Chérif Dia bu leen fàtte yi tamit ci kanam tuuti de quoi est-il le nom ak météo du jour euh, léegi ñu dem xooli ji wi xibaaru biti réew mi xibaaru biti réew ak Maymuna ñu dem fële ca euh, Tunisie ak candidat bu présidentiel bi di Ayachi Zamel. moom nga xam ni euh, soxna naata euh, fan yi ñu génn sax euh, amoon na ay jafe-jafe ci wàllum yoon bi la yoon nag tribunal administratif bi li mu def rek mooy nangul ñetti candidat yoo xam ni dañoo rejeté woon seenum li ñu doon sàkku commission bi nga xam ni moom moo yore wàllum élection bi fi mu toll nii ñu ngi koy xaar mu joxe liste bi nga xam ni ñoom ñooy bokk ñu fàttali ne ñaar fukki fan ci weeru août bi ñu génn ONG bi tudd Human Rights Watch doon wax wax ni euh, ni ñuy yoree élection yi ca réew ma foog ñu xoolaat ko ndax ñu bari dañ leen di gàntal ñi ñu tëj leen kaso euh, ngir ñu bañ a bokk ca Afghanistan foofu juróom benn doomu aadama ñoom ñoo faatu euh, fukk ak ñett jële ci ay gaañu gaañu ci bëcc gànnaaru réew ma soriwul dara ak fi ñuy duppee Kabul kii amal ñaawteef bi di ab wenn suwaay boo xam ni ba mu paree ci loolu dafa daldi di faat boppam bu ñu sukkandiku ko ci ki yore kàddu police euh, foofu ca Afghanistan euh, yamuñu ci ndax nee nañu limu ñu faatu am na euh, benn soxna bu ci bokk ñu dem ca Liban foofu nga xam ni ñaari doomu aadama ñoom ñoo faatu ci ab cong boo xam ni ñu ne waa Israël ñoom ñoo ko amal ci ab benn daamaar ca bëj saalumu réew ma ministère bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram bi li mu xamle rek mooy ñi nga xam ne dañoo loru ñoom ñëpp ay civil lañu ñi yore kàddu gi jokkalante bi ci biir réew ma yamuñu ci nee nañu attaque bi euh, ci drone lañ ko jaaralee euh, ca Inde foofu euh, mbënd yu metti yi nga xam ni moom moo fa am fan yi yëpp def na ñaar fukk ak juróomi doomu aadama yoo xam ni des nañ ci dañ cee faatu ay junni junni doomu aadama itam dañ leen a toxal ca béréb yi ñu dëkkoon bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi réew ma nga xam ni fi mu toll nii ñu bëri génne nañu seeni kër bu ñu sukkandikoo ci directeur bi ñu dénk lépp lu ñuy xeex mbënd mi ak catastrophe yi foofu ca réew ma nee nañu boobaak léegi ñetti junni ak juróom-ñetti téeméeri doomu aadama rawale leen leen ca réew mi nga xam ni euh, seen lim ci doomu aadama toll na ci fanweer ak juróomi million euh, ñu dem fële ca Chine pour nag ndar kàpp xibaar yi fare biti réew soxna naata ab benn bus bu fare ci école yi moo daal di euh, fël ay ñi nga xam ni dañ doon jéggi ci ñoom nag fukk ak benn doomu aadama ñoo ci loru Euh, dañoo faatu ca saasa euh, juróomi élève euh, ñoo ci ñàkk seen bakkan ci lim boobu lii nag ma nga xewee ci diggante sud-est bu Pékin diggante ak pak capitale bi nag toll na ci ñeenti téeméeri kilomètre loolu lañ mën a jàppangum ndax kat nee nañu accident bi xamuñu fu toll nii lan moo ko waral tembe tembe ñu ngay gëstu soxna naat jërëjëf Maymuna ci ñaareelu pàcc bi Abdoulaye Cissé dina ànd ak ñun ci jàngat bi ak démbali xew assemblée nationale et puis gan tey Mouhamadou Ngouda Mboup la nekk juriste président conseil d'administration bu port de Dakar